ci Cheikh Mamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mamadul Basir yàlla na fi yàgg te wér lool. bu ñu dikkee fii ci barab bii nga xam ne fi la ñu baaxoo séentoo weer wi ci ndigalam danañu ànd ak eh, jawriñ yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci liggéey boobu nga xam ne ñoo nekk ci suñu kanam sëriñ Mouhamadou Mamoun Boussa ak sëriñ Abdou Diop imam su ko defee bu ñu seentoo weer wi séenulu ko ci gox yi ci àdduna bi yëpp buñ demee ba nga xam ne waxtu wi jot na danañu joxe xibaar bi nga xam ne moom la ñu jot a am waaye bala ñu ko jox joxe it danañu jëkk a jokkoo ak kër seex moom Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu jox ñu ndigal kon nag léegi sëriñ Abdou Diop mu ngi nii toog mu yore kàddu gi ñu bàyyee ko kàddu gi mu wax ñu lan la jëlee ci kër Cheikh Mouhamadoul Mountakha bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo moo di sëñ bi naka jekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne danañu yebal ci jumaa ji ngir ñu yéene fa Euh, wax ne nañ séentu weere te lu ci waaye xam nga ñëw yëgle ko bu buñ ko defee ba noppi ne danay génn ci sowwu nag di séentu weer wi ak di taatan xibaar yi ci gox yi biñ ko defee ba nga ni nag nga xam ne nodd nañ gee ci lañ jokkoo kër sëñ ba yëgal ko ko mu yëgli ne kon loola doy loola doy na nañ yëgli ne kon weer yi feeñut ñu xam ne kon weer wi feeñut tey jii ci alxames ji nekkoon séentu bu njëkk kon suba ci ajjuma ji mooy metti mooy mattali weeru rajab bi kon nga xam ne gaaw mooy doon benn fanu saxbaan di weeru baraxlu kon ñu xam ne loolu moo jógee fa sëñ ba ñu ngi ñaan nag yàlla may ko wér bu baax a baax a baax ànd ak gudd fan ba li mu yéene ci yoon wi mooy àggale ko ba ba yeneen ba àggale ko te ànd koog moom.